bett dama waxoon dama waxoon candidat Bassirou Diomaye Faye ne que jarul ñu ciy sànni kaddu parce que fi ñu war a dem bëri na te temps gàtt na te xam naa ni comprendre ngeen waaye xam naa ni kenn ku nekk ci yéen namoon nañu wax ak moom tuuti moo tax dañu sori. balaa may commencé wax ci li ñu andi bii dama bëgg a wax ak waa état bi muy ministère de l'intérieur nga xam ne moom moo responsabilité sécurité candidat bu nekk campagne électorale la ñu nekk nit ñu mun a doxal seen campagne am nañu ay pexe yoo xam ne ñu ngi koy lal diggante Sédhiou ak Kolda ngir fas yéene dañuy attaquer suñuy caravane commencé won na fi ngeen gis ko ni ba police ngi doga ñew ñëw ci biir kër gi xam ngeen ñan la ay waye ma bëgg wax sénégalais yépp nak té ñun on est en campagne électorale on va la rencontre des sénégalais wax leen suñu programme ñu kenn dóoruñu kenn xeexuñu ak kenn waaye nag ku dal suñu kaw am nañu droit défendre u loolu loolu dañ leen ko yàgg a wax ba tax nag yéen la jeunesse sénégalaise ñu neeruñu ay milliards yu ñuy ay nervi ñun yoruñu ay milliards dee dee eh, eh eh eh les jeunes yem ni ñii dañuy def sen liguey ils sont là pour la sécurité su ngeen leen tàccuwul bu len len yóbbu c'est leur travail dama wax ni ñun yoruñu ay milliards yu ñu recruté ay nervi pour ñu dem xeex yi waye nous avons le ëpp lolu moy nous avons la jeunesse sénégalaise le, le, le premier responsable de la sécurité de la caravane Diomaye président mooy pour les milliers de jeunes qui nous suivent viennent les premiers responsables de la sécurité de cette caravane kon may wax rek ministre de l'intérieur la caravane bi amana mu mun a daje caravane suñu waajooju fi yëg Kolda du lu calculer du nous programmer en 2019 man mii daje naa ak candidat Macky Sall biir Ziguinchor muy sama dëkk dóorantewuñu saagantewuñu kenn attaqué wu ko ko ku nekk def na li war a def continuer kon loolu mooy campagne électorale la ca des nag moo wax a yéen waa Sédhiou président Bassirou Diomaye dama ko waxoon ni bul tudd kenn bëggul am na kan mooy kenn bëggul mooy koo xam ne ñi ko tànnoon def ko candidat sax président Diomaye sera président de la république inshallah, qui dimanche bii di ñëw semaine moo def. président Diomaye c'est un homme réfléchi et structuré xam-xam lay moo tax ma ne ko foo dem jukkil ci sa programme nga wax ko gaa yi politique bi nag bàyyi ko maa gaa yi xamante nañu ndax ñoo ngi lappi lappi nee nañ may atta loo xam ne waxuñu ko ci man te wax nañu ba seen gémmiñ ñi tokki te tey laa gën a siiw ci senegal yi président Bassirou Diomaye borom xam-xam la nit ku tey la nit ku dal la

kenn xamu ma woon Sédhiou fii yor suñu ñaari ñaari pick-up waa Sédhiou naan kii mooy kan sax ci candidat yi yàlla may ñu lu bëri fii may ñu presque dara ñu continuer liggéey bi ñëwaat fi 2019 waa seju ne ah ci diggante bi diggante bi ñuy dugg assemblée ak 2019 waa Sédhiou découvrir ñu ah am na lu bees ñëw 2019 nekk fi deuxième tuuti la ñu ki nekkoon première rang ma ñëwaat bii nag 2022 ne waa Sédhiou yéen amatu leen droit voté lu dul projet bi de manière majoritaire. fii lañu ñu dayoon ci place bi waxtaane ko même caravane bi lañ defoon ba egg si fii ñu ñëw Sédhiou jox ñu majorité ci élection législative ngeen am ngeen am seen doom muy Mohamed Ayib Daffé.

kon yoon bi gudd na yoon bi gudd na waa xam ngeen 100 pour cent dafa xawul méngoog démocratie nañ leen bàyyi tuuti kon nañ ko def 85 nañu seen jox 85 pour cent jox leen ko président Bassirou Diomaye Faye ma garanti leen nag à partir dimanche boobu incha allah ce sera le début changement véritable du changement structurel sàcc alal réew mi jeex fi jël réew mi tey na ko waa bitim réew jeex fi alal réew mi ñu tey ko ci réew mi séddale ko de manière juste et équitable kenn ku nekk ci li ciy wërsëgam mu jot ko c'est ça projet Pastef kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant am naa ni namoon ngeen ñu waaye ñoo leen raw kon waa Sédhiou namoon naa leen namoon naa leen namoon naa leen asalaamaaleykum